sa wërsëg lii nag yàllaa ko dogal dogal ba nag moom kenn mënu ci dara te day ñu dem ba fàtte ko. deux fois rek waroon nañoo taxaw seetlu lan mooy lakk marché bi fii ñi fiy lal liñ fiy lal lu mu tuuti tuuti tuuti mooy seen alal. naka lu dul bii waaye daanaka yu ci bëree bëri sëñ bi génn na. marché bi doog a lakk 90 ba léegi muy lakk di continuer nag di lakk jaaxal. ab lark moom waxu fi dara waxu fi dara. naaw ndax euh, waxoon na ne du yëkkati booy ndax amu fu mu leen yóbbu marché ba heure bu ñu xëyee di fekk mu tàkk te lu koy taal xamuñu ko loolu mooy suñu jàngat nag ñoom soñoon ñu bàyyi ñu liggéey ngir yàlla jëm sëñ Tuubaa ndax liggéey rek moo ñu tax a jóg lu yàlla namm la te lu yàlla teg ci nit bàyyi la ak saak ruu nga doolee sant yàlla ñoo ko mën a sàkk waaye mënunoo sàkk yàlla na fi yem nag ndax dal nu daaw jéeg sunu borom defar ko ba fàtte nañ ko teyit mën na noo dem ba fàtte ko waaw teyit nag master Serigne Fallou bi moom yàlla seet na ne jàmm rek a fay am lii nag mën la ñàkk lu mënta ñàkk day am waaye wax dëgg yàlla ku ne for am na fi sa wërsëg lii nag yàllaa ko dogal ba nak mom kenn mom ci dara te day dem ba faté ko nak Fall du def di dindi billaay du def di dindi te it duñu depp duñu daay duñu delu gannaaw noongi fi rek noongi ngi Touba noo ci marché bi bëgg ku nu dimbali yërëm nu jàppale nu xamne da no jur ay goné amna na nuy doom yu jigen amna na seut amna am doom yu góor ñu liggéey. lañ bëgg liggéey rek waye marché ba heure bu ñu dik fekk mu tak te koy tal xamuñu ko roma suñu jangat nak ñun soñon ñu ba ñu liggéey ngir jëm Touba ndax liggéey rek ñu waaw lu yóbbu suñu njaboot ni ma marché bi kenn lu koy lak kenn xamul na junne la kenn xamul na nit a koy lakk waaye nag ñun suñ suñ rafet njott ñun yaakaar na junne lakk ko ñun suñu rafet njott rek wax ndax mosu fee am ndax mosu fee am moo tax te lakk gi dafa jege kee suur muy bu mu tàkk waaw marché bi moom li ma yaakaar moo ko lakk ay nit ay nit képp laa yaakaar ñoo koy lakk ndax euh, programme nañ programme nañ euh, yëkkati ñu la 24 programme nañ yëkkati ñu la 24 moo tax ma jàpp ne gars yooyu ñu bëgg a di daal lal gi ñu lal tax ñoo ngi dem fu nekk dañuy jaxaseeg fu nekk moom bu ñu ko amee jël buñ sañoon ñu organiser ñu bañ man fee lal ñun ñëpp waaye yëkkati gi moom di euh, demuñ fenn amuñ feneen fu ñuy yóbbu loolu moom du xalaat ku koy xalaat ab dof nga mooy lakk mënuma xam ba marchand ambulant ñooy lakk xaw ma commerçant yu mag yi ñooy lakk xaw ma commerçant yu mag mais li leer ba leer daal moom mooy moom ñoom moom man du ma leen ci masa seetal moom man su mo waxe sama digënté yalla duma leen ci mas seetal parce que ma am xel xalaal lay jëriñ am xel xalaal lay jëriñ te nit ku ne defo ku la yéene jamm nga xam ko nit deful guddi ba guddi ngay lak heure bi lak da ngay ñibbi ba yegg sa kër ñu woog la ne la marché bi lak na ñun ñi ñëpp daaw bok ñun fi ni exact daaw lak bu ñëk ba fi ñun ñi ñëpp dañoo lakkon ba jéxal gis ñu dërëmu kenn li fi ñëw ko señ mu ndaxa mo ñu ko jox ñu ko ak li ñu liggéey te teewul ñun dañ ko dañ ko dañoo bolé li ñu neex ak li ñu naqar lepp continuer di ak suñu liggéey ñun jigéen ñëpp ci yam ku ci reer dangay tëdd kooy jaay ay jigéen ngay jaay te ñi ngay jaay ñëwuñ ci marché bi kon yow looy def ci marché bi lan ngay def ci marché bi kon marché bi am na heure boo xamante ni bii ne cinq porte la ak ñaari porte entrée yu mag yi kon li nga xamante ni bii ne moo moo moo am dëgg-dëgg-dëgg nanu xool gardien yi ñu dimbale ñu ngir yàlla port yi ñu di ko fatt ba kenn ku nekk ci biir marché bi mu mën a génn marché bi ñu tëj marché ba beneen yoon ba bu lakk amee ñu xam lan moo war a mën a lakk marché bi ñoom ñi nga xamante ni ñoo fi nekk tamit ñu bàyyi leen fi ak sunu alal dem wan leen gannaaw ñu jël seeni responsable boo yoo xamante ne bi ne suñu ñëwee danañ dut baaraam xam ne lii moo lakk marché bi waaye mënuñoo fexe boobu ba léegi 98 laa leen wax marché bi day lakk heure bi mu doon lakk lay lakk di ko lakk tout le temps muy lakk ci heure boobu noonu kon ba léegi nii te bis bii mu lakkoon bii moom la lakkaat ci bis bii ja chaque fois dañuy ba li euh, ma la ko bëgg a waxee mooy mës sa lakkati sëñ bi nekk fi daanaka lu dul bii waaye daanaka yu ci bëree bëri sëñ bi génn na marché bi doo ko lakk 98 ba léegi muy lakk di continuer nag di lakk jaax nu bëgg ngeen dimbali nu xool nu toppatoo nu sàmm nu ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla doole jàmm. ñun ñu liggéey baax na ndax xale góor yi ay ndaw yi la doon liggéey ndox suñu yaay seen i bàyyi sonn nañ lool nag waaw loolu la nag socc ñu fenn ñu. sàcc ñu feeñu xaw fi amul ku la mën a wax ne la mairie lii la fi jàppalee kii ku ko ku ko ko fi def na ko wax ku fi mairie jàppale rek na taxaw ne man mairie jàppale na gis na ñii dañu nax seen bopp ñii dañu nax seen bopp lii ñuy def nii avancé lul ab dëkk gis nga senegal Sénégal laa la wax économie Sénégal lépp corniche yi ñoo ñoo ko yor corniche yi ñoo économie Sénégal Sénégal amul benn corniche boo fiy dem boo fekkul boo fekkul ñuy jaay ci mbedd mi amul fii Sénégal corniche yëpp nag foofu dem da fekk ay ay ay ay ay nit ñuy jaay ci corniche léegi pourquoi pas ñu mën a moderniser ni ñi ku ne am foo yam yem pourquoi pas. ay marchands ambulants ñoo fi nekk ak ñoo xamante ne ay commerçant lan yor seeni i waaye xamuñu fenn fu ñu jëm bu wàcc jotee dañuy wat ñibbi buñ jàngiwul xasida nee naa leen ci jumaay sëñ Tuubaa ji dañuy reer tëdd amuñu benn béréb bu ñu dem amuñu fenn fu ñu jëm amuñu lenn lu ñuy def liggéey jaamu yàlla moom la ñu xam waaw moom rek la xam. kon nan ñu dimbale ngir yàlla nañu sëñ bi dimbale ngir yàlla ci matt bi dimbale ñu ngir yàlla ak yonent bi am na loo xew nag ñëpp naan nan ko waaye nag ko ko waat doo lakk waaye am na lu xew nan wax lii lakk matt bi lu xew loolu sëriñ Fallou Mbacke seere na ni li ma tegoon fii muy gaal gi ma jënd jagoon ko fii def ci samay bagage génnewu ma dara dara dara dara fekk naa xale yi lépp lakk ba ubbeeku man meer Fatou Mbaye bëgg Fallou barke Cheikh Modou Fadel Mbacke dara desu te kuma gis ni nga nga seetaan ma déwén ni maire bi wax deug rek la xam ci mom fan wéré at amna ko ci marché bi barke seigne Fallou barke xayra la deuk seigne Mourou sa djeng te it marché seigne Fallou bi kat day day day xorom ci Touba ku ko baye di nga delu ci wat no ngi ñaan Cheikh mo seigne muntaha liggey bi mu sante Baye Fall fas nañu yéene and ci ak mom ci waw d'accord ci bu rafet rafet nak li tañu ci d'accord dañuy defaral defar googu day nu yak waaye bu paree mooy dàq li ci gannaaw. chaque jour chaque jour bu ñu bu ñu doon chaque jour bu ñu doon gont di ko taal marché bi heure bu ñu doon gont di taal marché bi bu ñu xëyee danañ xëy si waat xam nga loolu feneen fu jëm ñun ñi ñëpp bi ñu xëyee dañoo wut si waat fi ñu liggéeyee te bi ñëwee dañoo toog donc di seetaan est-ce que xam nga li ma la wax ñun ñi ñëpp ku ci ne bi nga xëyee da xëy si ñëw toog di seetaan yoroo loolal liggéeyoo amoo loolal mais teewul da ngaa di toog loolu ñàkk foo jëm la. bu fii lan jëm amuñu fenn foo xamante ne bi bu ñu yëkkatee fa la ñuy jëm waaye marché Ocass la ñu am moom Touba marché Ocass sëñ lu moo ko sancoon sëñ lu moo fi ñaanoon ajjuma la daan tëgg la Seex Ibra wax xumb gaaw tas di béer lamb ji tëj yàlla woo ma gërëm ma ñetti yoon man sébra ñun amuñu lu dul marché bi buñ defaraloon nit ñi ba ku ne am foo jëm kon buñ lakkee fii marché bi balaa marché bi lakk sax ñun ñooy wuti fuñ jëm mais ñii nii yoon bii ñu jël nii baaxul parce que lii day daaneel économie réew ku ne lim fi yor lum tuuti tuuti Lum tout tout la wax mooy alalam loolooy as ñu dimbalé ñu ngir yalla nan ñu dimbalé ci dëkk bi lan dëkk du ñu jëdd jéeri du ñu mbadantaan fi lan dëkk nan ñu jàppale ngir yalla ak yonent bi liggé rek lañu xam teel a xëy guddee bëgg mu gën no jappalé ñun am luñu ma doon taxaw di di jaay sax lu mag magat magat, di nga taxaw nak señ Fall rek ka fi né ginnaw yalla mo fi señ mu Mountakha yalla na fi yag té wër té bu gesto gis nu té boole nak yéen ngeen yàgg a ñëw yàgg ko def te bàyyi nu liggéey te bis bu yàlla dogalee bàyyi faali ñëw ko am sa ndox indil ku am lekk indil ku am kafe indil te boole koog bu nu sikkaree nga bokk ci sikkar ba ñu bëgg nam ko